ah seet ki nga xamante ni moo di soxna Nafi Fallou fal soxna Nafi Fallou Fall ak a doy waar la voyante guérisseuse mbokk yi adresse baa ngi noonu cité Aline Sow jëf ñu ngi fii ci Kébémer suñu teewaay ci Kébémer nag tey xam ngeen li ko waral oustaz Modou Fall mooy inauguré ah, daara ji nga xam ne ni moom la tuddee Medinatu Rasoul tey nag mu woote bis boo xam ni bis bu am solo la ah, ci diina l'islam mi aussi ci jàngaleem alquran di li waral tey ay soppeem ay xaritam ay am di jàmmam ay njabootam ñëpp teew nañu fii ñu teew ak koo xam ni tak wax dëgg yàlla xam nañu digganteem ak ah, oustaz du Fall wante tamit xam nañu taxawaayam ci ëttëb Serigne Babacar Sy muy sàmbu bi nga xamee ni yaakaar naa ne ëttëb Serigne Babacar Sy ci la ko Sénégalais yi xàmmee waaye Sénégal yëpp ko bokk Sénégal yëpp ko bëgg moom it teew na ci bis bi nga xamee ni moom la moo oustaz Modou la woote euh, Serigne Sam xanaa rek waa rédaction wu seen bës dañ lay nuyu di la gërëm bu baax a baax ci occasion bi nga xamee ne am nañ ko tey di la ñaanal di sàkk ci yow ñaan buub jërëjëf alaaj congaan maa ngi lay nuyu baax a baax di la ziyaara di la ndokkeel bu baax a baax ci bisu diine bi mhm. bisu lislaam bi waaye bisu ku bëgg lu baax tey alquran sagooti na mhm. tey diine sagu na tey mbooleem ku bëgg yàlla rek sa xol sedd na ndax dangay xam ni wogg bu daanoo ci biir kàmb tukkiwul daa ñibbi baal xaaji as Fall mi nga xam ni moom meññeer oustaz Modou Fall bi alaaji Modou jotee jotee pour mu dal jàng jàngal na ko alquran jàngal ko mboolem fànnu xam-xam yi alaaji Modou it bi mu jàngee baam xam-xam dégg na aaya ba Seydina Muhammad waxoon hadis ba Seydina Muhammad waxoon ni balligu nii mm-hmm. walaw aaya mooy na ngeen jotal donte benn aaya mm-hmm. looloo waral li ko yàlla wërsëgale ci xam-xam moom itam mu ciy dimbale jaamu yàlla yi ba jël pàkk bii nga xam ni ay tey bu nu ko doon wecceeku ay millions lay jar mm-hmm. wala mën naa ne ay milliards mu def ci ay million ngir yàlla ak jaami yàlla yi jàng alquran jaamu yàlla yi xamaat seen diine. Mm-hmm. jaamu yàlla yi gën a bëggaat yàlla ala congaat. macha allah alors Serigne Sam lañ la ci war mën a jàngee ci diine xam nga ni jamono soppeeku na ba innovation am na ci yu bëree bëri ñu jàpp ni ñu bëri gis ni éducation islamique dafa mel ni dafa dellu ginnaaw kon oustaz Modou Fall euh, bu ñëwee jëmbat lii dafa mel nit rek yaakaar war na mën a am ba léegi kon. yaakaar war na mën a am ba léegi ala congaan mm-hmm. euh, dafa am loo xam ni li mu ñàkkoon a li mu bariwul woon moo tax ñu jàpp ni lislaam yar baa ngay raaf waaye buñ ci amee tey ñu mel ni oustaz du Fall ñu jël lu mel nii ak fu mel nii nga xam ni tey école yi nga xam ni ñooy école nasaraan yi ñu daara ji dara ci anam yu baree bari ci wàllu stabilité ci wàllu lix ci wàllu taxawaay buy buy buy buy gën a yeesal xar kanamu njaboot gi fiy jànge ci ngay xam ni lislaam day gën a yokk waaye diine day gën a am ndam alaj conga macha allah alors Serigne Sam mënuñu bañ a wax tamit wax dëgg yàlla sa taxawaay ci ci ëttub Seydi El Hadj Malick Sy radiallahu euh, Sam sa relation ak famille bi di Seydi El Hadj loo donn la ci sa famille wala fan la commencé waa ñun xam nga yàlla moo ñu boole ko Seydi El Hadj hmm. dafa am loo xam ni du liggéeyu nday coobare yàlla la yàlla moo lay tànn boole la ci xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ni yàlla di tànnee xeetu yonent bi noonu la yàlla di tànnee ñiy tagg yonent bi yonent bi ñi koy tàgg yàlla moo leen di tànn yamu ci waaye yàlla mooy tànn yaay yi leen war a jur ak papa yi noonu la yàlla di tànnee ñi nga xam ni ñooy bokk ci xeetu ci as ci njaboot Seydil Hadj Malick waaye itam nitu yàlla yenn saa yi nga gis nit ku bëgg nitu yàlla mhm. waaye yenn saa yi nga gis nitu yàlla bu bëgg nit mhm. ñun Seydi Hadji Malick moo nu bëggal boppam xëcc ñu ci biir njabootam waaye doon donnuñu ko tax fekkuñu ko fii itam nitu yàlla yi léeg-léeg nit bëgg leen te duñ la bëgg waaye léeg-léeg ñu bëggal nit seen bopp waaw nitu yàlla yenn saa yi mu bëggal la boppam mhm. yenn saa yi ngay sonn ci nitu yàlla di dang-dangi te doo ci am dara fekk moo la bëggul waaye yenn saa yi dara lépp fekk si la maanaam kooku moo la bëgg yàlla nit ñi ñooy daw di wuti ngëneel mhm. yàlla jël ngëneel def ko muy magasin jël yonent bi def ko muy caabi ji noonu la demee rek macha allah Serigne Sam ñu ngi naan Seydi Hadj Malick Sy bari na ay kawteef ay kemaan yoo xam ne wax dëgg yàlla mën nañ ko laal mais Sam bokk na ci ñi nga xam ne ay kawteefu Seydi Hadj Malick si lañ saam nan lay def ba mokkal saam macha allah nan lay def ba xasida yi nga xamee ni mu ngi koy wax ci Seydil Hadj Malick si ak ci yonent bi nan lay def ba mokkal xasida yi ba xam nga góorgóorlu moo lay dimbali ci yenn yu bëree bari hmm. xam nga mbir boo ci bëggee boo ci bëggee nekk ñun xam nañ la bu yàgg-yàgg nañ la xam hmm. tey rek jugoo jug rek nekk ci lii hmm. jaar nga ci eh, daara yi daara yi ci senegal jóge fa dem dem Maghrib jóge fa dem ci yeneen réew yi ba tey eh, nga nga nga macha allahu taala yàlla na yàlla yokk ko ba tey fi nga yegg yëpp yàlla yeggale la fa loolu boo toogoon rek ni man de bëgg naa def lii nangam bëgg naa def lii bëgg du am da nga ciy gëstu def ci yitte ba yàlla jàppale la ci loolu yitte jooju ñëpp di def moom lañ def ba yàlla jàppale ñu ci li ñu nekk tey tabaar mais ndax yomboon na Serigne Sam xëy na amoo jumtukaay yu la waroon a mën a dimbali ci réew mi ba xëy na mokkal gi yomb waaw yombul waaye nag euh, euh, yombul waaye ñaanu mag ñi ak barke yonent bi hmm. moo ñu dimbale waaw ñaanu mag ñi ak barke yonent bi mbir boo ci bëggee nekk maanaam euh, euh, mbir bu la euh, yàlla sax nit rek nitu àddina yi rek suñ la bëggee tey congaan boo nekkee sama xarit foo ma fekk ci réew mi tàllal ma micro am na koo xam ne tey yéenam yëpp mooy nga interviewé ko te yomb ko cofeel gi nga am ci man ak xam gi nga xam suñu diggante moo tax foo ma fekk rek tàllal ma micro noonu la deme mbir boo ci nekkee yàlla xam ni lii lii bëgg nga ko yàlla daf lay jàppale mm-hmm. jumtukaay yi du yomb waaye yàlla def na sutura ba góorgóorlu nañ daal ba fi ñu ci bëgg a yegg. xam naa ni yegg nañ ci sax fu xa fu kawe suñu njort barke mag ñi. alors sa kéemtaan yemul rek ci Seydi El Hadj Malick Sy Sam foo jàngee ñu ne foofu nga bokk macha allah ci euh, am daax tagg yu neex yi nga xam ne moom ngay def ci façon bi nga koy defee mais aussi euh, texte yi nga xam ne tamit mokkalee nga ko fépp loolu tamit yaakaar naa ni euh, xëy na du Seydi El Hadj Malick am na leneen loo ci waxul Serigne Sam. waa réew mi ñu nekk réewum sagalante la. réew mi ñu nekk kuy wax. allah ñu lay déglu. da ngaa war a jël sa bopp def ko muy fédérateur. nga nekk kuy boole. nekk kuy taqale waaye doo nekk kuy taqale wax naa ñaari baat yu xaw a nduroo te bokkul. nit ku nekk di jël micro di ca wax. wax ja di sotti war a sant eske yi war ngaa bokk ci ñiy taqale. te waroo waaye waroo bokk ci ñiy taqale. war nga nekk fédérateur moo tax fu nit nekk tey jullit. te bind dara def ko ci Seydina Muhammad ñun daanu fexee gëstu loolu ñëw indi ko teg ko si la planète internationale wan ko nit ñi ñu xam ni mag ñu baax ñi nga ñi ñu am Sénégal seen lépp dañu ko jëloon jox ko Seydina Muhammad ala jonkal sàmm mbëggeel gi moo lay tëbb ba yëf yu yomb wala tamit macha allah je touche du bas comme ni koy waxee yàllaa la may nga mën a mokkal ñu bari tamit ñu ngi laaj naan sàmm comme ni ñu koy waxee ci olof boobu bee baax wala tamit lan moo ko may daal vraiment facilitation bi ba mokkal gi macha allah heure bu waxee ñëpp ñëpp nangu ko. waaw tabaraka loolu cofeel am na ci cofeel am na ci. Mm-hmm. yàlla mayu yàlla am na ci man nañ ni. mayu yàlla am nañ ci mën nañ ko tuddee cofeel mm-hmm. waaye am na dëgg dëgg dëgg dëgg xaqiqatan mbir mi mënoo xam lan la mënoo xam la la ndax bu dee mokkal bi ñu fi juddoo ak léegi li ñuy wax mënuñu koo mokkal. kon am nañu ci jàpp ñu ci jàpp nag mooy magi lislaam bi. magi lislaam bi nag su ma la ko waxee mooy maam Seydil Hadji Malick ak njabootam ak njabootu lislaam bi. Mhm. ci olof ñuy faral di wax ni saam lu tax mu yéeme mooy yàlla nattu na ko mu bokk ci nit ñi nga xamee ne wala teraanga la mu bokk ci nit ñi nga xamee ne xëy na ñaari couleur sax mënu leen a xàmmee waaye tey du ñu tudd tàggkatu yonent bi te duñ la ci boole loolu ban yëg-yëg lay def ci yow am ci société bi. waaw dana da nga da nga ci xame ni. Mm-hmm. da nga ci xame ni yàlla lu mu la defal. yàlla lu mu la def. Mm. am na lu mu lay defal xaw na ndax dégg nga maam dégg. Mm. yàlla nu mu la def rek am na lu mu la war a defal. Mm-hmm. sama benn kilifa dafa may wax ni ma li la nit ñi def. Mm. muñee ko li la yàlla defal tey. Euh, mbooleem ñi ñu nekkal di suñuy mbokk di taggkat yonent bi. Mm-hmm. alayhi salaatu wa du ñu ni li ñuy def ñoo ko ci dàq. waaye yàlla dimbali nañu ci barke mag ñi ba fu ñu dugg ñu ràññee ñu ci loolu nag coobare yàlla la ak Seydina Muhammad reconnaître ñu sallallahu alayhi wasallam ndax loolu lañ doon ñaan yàlla te yëg nanu fi nu nekk ni yàlla nangul nañu ko ala congal Serigne Sam am na loo xam ne xew na kilifa diine yi liggéey nañu lu nekk mais ndaw ñi léegi ak TikTok ak yenn média sociaux yi am gis nga ay ndaw sax yoo xam ni ci lu yàggul dara am na ku génn di yëkkati ay kaddu yu tegginewul jëmale ko ci kër Seydil Hadj Malick si kaddu yooyu ndaw ñi faral di ko def léegi di ko jëmale euh, ci kilifa diine yi ban message nga ci bëgg a jàngale yow euh, ñàkk delloo affaire bi fa mu nekkoon la bu njëkk alaaj congaan mag ñi sunu mag réew yi lan daan roy waaw jamono bii nga toll da daan am jamono bu njëkk da nga daan am ko am da nga daan gis ko am sept ans ñu naan kii dafa dooj mhm. dafay mag-maglu léegi nag da gis ko am soixante-dix ans naan ñun jeunesse bi loolu mooy dañoo dañoo dañoo dañoo perte suñu ay valeur dañoo bàyyi mag ñu dañoo bàyyi ñi ñu mag ñi ñu daan roy di roy ñoo xam ni duñu suñuy moroom sama yaay moom ma daan wax ni doom ku wàcc sa ànd ànd boo dem da ngay fekk borom toog ci ba pare jël ànd ba nga wàccoon teg cay tànkam ñàkk xorma gi ñu ñàkk xormal suñu mag ñi mhm. mooy respecté respect gi ñu leen waroon jox li ko waral mooy dañoo bàyyi suñu yoon fa ñu waroon a jaar dañ koo passé dañoo raté suñu vocation mhm. loolu nag bu amee boo dee roy ñu dul sa morom di nga def loo xam ni mhm. yow jigu la ñun bu koo ci gis ma waa Amérique. Mhm. Angleterre te am mag ñoo xam ne ñoo leen gën ku am mag mu mel ni Seydil Hadji Malick. Mhm. am mag mu mel ni maam Borom tuubaa am mag mu mel ni mam Cheikh Ibrahima ñas mhm. am ñu mel noonu ci réew mii ñu toll. kon wax dëgg yàlla. am nga ay royukaay yoo xam ni war nga leen a roy moo moo boo leen royee rek doo réer ñàkk roy go mag ñooñu nag moo waral li ñu dal yëpp ñu dal ñu alaaj conga kon crise de référence daal maanaam ñi ñu am comme référence ñooñu lañ doy tudd looloo ñu dal li ñu dal yëpp looloo ñu ko yóbbu <laughs> waaw léegi lan moo ci war a nekk taxawaayu ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi wala ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite ci mbirum àdduna xanaa ñu ëlbatikuwaat fexe ba jëlaat xale yi nga xam ni ñoom la ñu yaakaar ñu tegaat leen ci montagne bi wane leen wan leen gën leen a jàngal yar gën leen a jàngal teggin te it ala congaan ñu gën leen a jàngal suñu mag ñi ndax mag boo ko xamul da nga koy réere te boo ko réere rek wax ko naka sudul noonu boo ko jàngee nag ba xam ko di nga xam mooy kan di nga def yitte ba xam li ngay am lan la doon. macha allah Serigne Sam xam naa ñu ngi dem ci tante bi waaye mënul ñàkk en une minute dafa am loo xam ni jaar-jaar la bu ndaw ñi war a xam ci yaw sa diggante ak sa waajur bu jigéen. nga xam ni yaakaar naa histoire boobu damay wax ni histoire de motivation la pour xale yi lan nga ma mën a wax ci sa jaar-jaar bu métti bi nga xamee ni jotoon nga ko dund ak sa yaay ba nga xamee ni li la gën a neex nee nga mooy bis bi nga demee tagg yonent bi ba jëndal ko ci lal. damaa ñaanoon yàlla ni lépp lu ndaw di defal doomam wayjur maa ngi ñaan nga njëkk ma njëkk koo defal sama wayjur maa ko njëkk tabaxal kër maa ko njëkk wutal paasu teraanga yu bëree bëri yu wayjur yi dem maa ko njëkk sama yaay. am nga ay mag te am naa ay mag maa leen ciy wutu tabaarakallah. muy xéewal bu doy waar. ma koy sant nag yàlla. Mm-hmm. ndax wayjur wi dafa sonnoon ci ñun lool. Mm. suñu yaay bëggul woon ñu xiif bëggul woon ñu mar bëggul woon ñu rafle lu mu mës a am ci àddina ñoo ko gënal. Mm-hmm. lu mu mës a am ci àddina ñoo ko gënal. Mm-hmm. moo tax ñun itam. lu ñu waroon a mën a def lu dul fay ko suñu fay ko borom. moo tax moonu gënal ci àddina sama yaay moo ma gënal lépp man sama yaay mooy sama sëriñ mooy sama gàllaay xel sama yaay mooy sama secret. alaaj conga Sam fi may jeexalee dafa am benn mbokk bu mu doon waxtaanal ñu lay jëw évidemment jëw bu rafet mu ni ma Sam dama sentir ci moom ni tey bu amoon xéewal boo xam ne yàlla deseel na ko mooy mu may ko mu mën a gis béréb bu sëriñ Babacar si ndax kàddu yooyu loolu dëggal la. radiyallahu anhu waaye xam nga wax na dëgg. kooku wax na dëgg ci benn côté. Mm-hmm. waaye am na koo xam ni doo tàqale koog moom koo dul tàqalikoog moom koo dul tàqalikoog moom nag li nga koy gis ba li nga koy gis sax jaru muy bari te ñun mag ñi du ñu tàqalikoog ñoom ndax bis bu jot ñi ngi wax seen i mbind ñi ngi wax seenum njàng ñi ngi wax seen jaar-jaar te am na fu ñu yegg foo xam ne alaaj congaan mag ñi ñoo la fa man a yeggale moo tax chaque jour xaa kullu yawmin wa laylatin ñi ngeek mag ñi macha allah ñëpp nag laa mag ñëpp nag. chaque jour ñi ngeeg mag. tabarakallah Serigne Sam xam naa dinañu amaat jotaay dina la jël sa tante bi waaye rédaction ñu ngi lay gërëmaat di la ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin amiin yàgg ñoo taggal sang bu tedd bi incha allah jërëjëf Mbow. am